sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokk yi fi teew ak taalibe yëpp. di leen wax ne li waral jotaay bi mooy waajal màggal gi ak leeral ko. li waral jotaay bi mooy waajal màggal gi ak leeral ko. leer gi mooy ay fan a ngi nii màgg dañu màggal ñii duñ màggal. nee ay fan a ngi nii ñii naan danañ màggal ak duñu màggal. ñu dem ba jot ci bind sax. ne màggal gi duñ ko def ren. nee na am nañu dem ba jot cee bind sax ni màggal gi su ko def ren. loolu lépp dara wéru ci ndax jëlee wuñ ko ci e, source yu wér. nee na waaye loolu lépp dara wéru ci ndax jëlee ko ci source yu wér. bu fekkee ne sax gisaguñu bi. nee na booba sax fekk na giseegut ak sëriñ bi. ba am ci ndigal. ba am ci ndigal. léegi gis moom mm-hmm. am na ci ndigal. nee na léegi gis na ko